maa ngi leen di fay di leen nuyu di nuyu soppe yi di nuyu waa senegal gi yëpp waa di nuyu suma yaay ak suma papa di nuyu waa Kaolack aussi waaw di nuyu aussi waa Gambie nga xam ne dëgg neexul dañ ñu bëgg rek taal a tax di nuyu ñëpp di leen nuyu di leen nuyu yéen ñaar. jàpp sa diggante ak Omar Chevron. waaw Omar Chevron nag euh, sun sun suñ xarit la moom faramaarin la moom faramaarin la suñ xarit la moo tax tey jii. boo ñu gisee nii tey ji nga xam ne suñ nit moo xewle déplacé ñu yombul moom faramaaren la te deret moo ñu tooñ donc looloo tax ñu teewal ko nii voilà ah non parce que jàmbaar la tey ji li mu def nii képp kuy ndaw nga maase moom royukaay la ci yow waaw ah, jàmbaar la dañ koy gën a ñaanal rek yoon bi mu bëgg mu gën yàgg ci koi diggante moom Ah, diggante Mama Ali xaw ma ci dara de wax dëgg fa yàlla waaw xaw ma ci dara de xaw ma ci. mais waaw faramaareen xaaral xaaral kii kii dama koo tontu bu yàgg. xam nga wax naa ko ne naa ko faramaareen moo ñu boole deret moo ñu tooñ mu laajat ma loolu man moo tax ma ne xaw ma ci dara. <laughs> waaw loolu waaw ñun ñëpp ay faramaareen lañu. en ce moment de wax dëgg fa yàlla ñun ñun ñëpp ñu ngi jublu ci yàlla. ah ñaan ci yàlla rek yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar suñ suñ suñ parents yi dem nii ñu ñaana leen yàlla yàlla yàlla yërëm xare leen àjjana ndax ñu ba ay nit yu baax lan waaw mama jaaga papa coon ay nit yu baax lan barki sëriñ Saaliw yàlla na suuf oyof seen kaw ah njàpp nag moom mu ngi waaj comme ni ko ñëpp di waajee comme ni ko sama papa di waaje le 12 mars incha allah bu passé di ngeen xam qu'est-ce qui se lu war a xew allah. Euh, mooy standby maanaam bés boobu ngeen doon am da dafa wàññeeku ba tax ngeen tàggali koog seen sago lu nekk yéen koy def lan ngay tontu. lu nekk ñu ngi koy def comme. ban buzz ban façon buzz ñun ñii. sa buzz yow fan la. ban vidéo la. non non loolu contrat boo xamante ni dañoo boolewul ñun ñooñu noonu parce que liggéey la waaw. contrat sama contrat man bu ma fay sama xaalisu bopp moom ma yóbbuwoon Gambie voilà. yow mi seytaane nga de kenn demul fenn li ngay wax ni yow rek yaa koy wax kenn waxu ko déedéet ñun ba booba ñu ngi dund dëj bi da ñoo gis fenn gisoo ñu fenn de yaa ko wax de fan fan fan gam bi damaa liggéey may lan yéen ay journaliste yu doy waar ngeen

sama <laughs> loolu sama yoon néew nga dem laaj ko dem laaj ko sénégalais. mais doo ko defaan te ngeen am doo dem laaj ko sénégalais yi. waaw loolu donc la nga koy laaj sénégalais yi rek. loolu moom sama yoon ji ci moom wax dëgg fa yàlla. man aussi ñu ne da doom jox ko ñaari nit. waaw loolu tamit danga koy laaj sénégalais yi ñoom. jël euh, doom bi boo bëggee dégg dégg kenn yónnee ma dara. Ah, kon eh, man kenn yónnee ma dara. Ah kan moo ma yónnee xaalis kan la kan ma wax loolu. Ah, boo demal laaj moom kan laa kan laa kan laa ci waxtaanal. ci ci kii ci kii lañ nekk nu ñu xet sax Sénégal lañ nekk. dëkk boo xam ne boo defee ñu wax boo deful ñu wax kon donc man awma lu may tontu nit ñi ndax li ñuy wax ni xam naa ne amul moo tax jarul wax da leen bàyyi yàlla rek waaw. Ah, man yàlla moo ma mën a yàq kenn mënu ma yàq lu jóge waa lu jógul ci yàlla mënul yàq njàpp zoo ñi xam dëgg demal nga laaj leen danañ la wax kan mooy njàpp zoo. lan ñi nga xam ne dañu ne sentiroo sa bopp ci seenu Wally Ballago Seck Euh, pour ma wax la benn affaire Wally fi ma la bëgg a tontu sax xëy na dina xaw a garaaw tuuti Wally ay njàpp firi xàpp ak maa xàpp ci seen bi parce que tey jii bu ma yégee ci scène bi gis ngeen ni musiciens yi di def waykat bi gis ngeen muy def sama xaritu danseur ak sama papa fecckat yi gis ngeen ni ñuy def dañuy kontaan kon Ramadan sama kër la xam nga ñoo mën a jaxase ay nit rek xam nga mais noonu la ñun waa Ramadan ñun daal benn la wax dëgg fa yàlla amuñu ah, maa ngi sant yàlla damaa gën a yokk barki Cheikh Ibrahima Fall. déggoo ma de dama gën a yokk man man damaa man damaa demati fenn man talatuma dara damaa toog rek ah ci anam bépp nag. ci anam bépp dematuma fenn waali bu baax waali dafa maa tàqal dafa maa tàqaleeg lu bari ci àdduna bi ci lu bari noonoo non man mosuma ñàkk déedéet mais loolu du bokkut ak ñàkk bokkut ak ñàkk de tey ji li nga wax ni yow li nga ma wax nii waxuma la ko waxuma loolu de déedéet waxuma loolu de voilà waxuma loolu de Wally sama papa la te dafa am lu ñu waxtaan man ak moom kàddu yooyu du ma a dañ sama diggante ak moom lu ñu tënkante la loo xamante ne suma koo tëkk tënkante waykat sama dernière ba may ñëw soirée Wally Vogue avant ñoo dem Gambie man ak moom kottante nañ doon déyante lu yàgg. foofu la wax na ma waxi nit wax ma wax ma waxi nit mu dégg ma dégg non non <laughs> waale bu woon doon di ma gis may fett nii Ramdaan kan non man maa nam sama papa ji Ramdaan fa ma fa ma jógee woon ba may gone fa delluwaat ni <laughs> du dëgg man nag kaay li may dund naturel moom laay dund nit ñi di gis man du wax waxi jàmbur yaa ko fi tudde waxuma waxi waxuma déedéet déedéet déedéet man du man saalum saalum laa du ma wor parce que yaa may dégg xam a tey ji nit ñi ñoom ñëpp ñu ngi wax man ma toog ne cell rek te bu ma waxee léegi réew mi toj barki Cheikh Ibrahima Fall su ma waxoon léegi réew mi toj parce que parce que tey jii parce que ma ak ma koo bari le waaw li ma xam bari na mais mais xam nga xam nga ñun ay Baay Faal lañ Baay Faal nag du question du ay sol yi rek non non kii yeeg yooyu noonu Faal ci xol la Baay Faal mooy nit koo xamante ni góor yàlla la yaa ngi comprendre ñu noonu lañu ñuy dundee mais tey jii boo nekkee ci aar surtout aar jamono jii fi ñu nekk nii nit ñi dañuy yàq nit ndax nit. te duñ comprendre di la xulooloo di la jaxasaloo ay nit te alors ko yow sa yoon nekku ci te alors ko yow boo laajee keneen ki nga yàq bu la expliquer nga bàyyi keneen ki ci des te man xale laa te maa ngi sama yoon te bëgguma tooñ kenn ku ma tooñ tamit baal naa la man ñu ngi tooñ man ba ma commencé ne ci aar ba tey ngi may tooñ lu ne lañ may waxal ta xamuñ ma waaw du ma dem kenn duma dem fenn du ma kenn sama benn mag bu góor laa doon àndal te tukki na dem na Italie daw ma fenn kenn xamal ma dara dañuy wax nii rek barke alxuraanu karim new ma sax ci temps bu gars yi nekk nii. bilaay wala la ma paree ci aar maa ngi ci leneen football sax moo ma gën a ñor su ma paree ci aar nii ci laay gën a nekk sax bilaahi. ki nga xamante nii nag euh, mooy Alima famille sénégalaise Ndaya <laughs> ah, sénégalais yu bëri dañoo jàpp ne yéen ñaar da ngeen di génn lan ngay wax ci loolu. non loolu moom eh. comme li ma lay wax rek sénégalais boo leen toppee sa sa yow gaaw ngaa de sa wujj bi rek ngay rey sa bopp nii. naka jekk ma xam di ma laaj question bi c'est grave. aywa. damaa jaaxle de. yàgg nañ maa wax ne da ngaa mën a sos mais am problème. ah non de dëgg laa wax kii moom euh, nu nga koy xas sax. Alima comme li sénégalais xam nga sénégalais tey ji boo leen di boo leen di déglu seen i wax. tey jii mën naa ne yoon wi nga nekk sax da nga ko dul yegg da nga ko dul sax yeggale ko waaw man xoolal tegal sama sama kii ni nga koy xet sax concert nga xool ma bu may yëg damay siwlis damay sol lu rafet yaa ngi dégg di reetaan rek xëy na ree yi moo leen neex mu ëpp ñu kontaan kan de <laughs> yow wujj bi la <laughs> Alima Alima Alima sama sama jigéen la sama xarit la waaw waaw loolu dong la waaw waaw. kan si non mooy li ñëpp di wax rek man xam nga lu ne lañ ma. mais sa gel bi nga bi nga wor tamit nag njàpp nag. ban gel sa gel bi nga bi tatoué ci njàpp lépp ah, nekku ci.